waaw loolu jàmm la si. mel na ni ah man de démb maa nga woon m 2 la police auto gendarme yi waa lii xanaa nekkatul jàmm. ci kaw pont ci kaw pont Sénégal émergent la xaw ma ci ah! ex Sénégal 92. waaw. dañ leen wër ah, daal loolu jaaxal na nit ñi en tout cas daal M2D réussir na le pari de la mobilisation. Mm-hmm. waa M23 nag xam nga fan lañ raté mbir mi. Mm-hmm. dañ koo jël jëf la guerre des pancartes. Mm-hmm. ku ci nekk ñëw wane ne sama leader moo fi nekk booy mel ñaar meeting mhm. moo taxit en de poisson la jeexee ay tam ba léegi nii amul chute dara loolu ay tëgg tam Karim Sakho waaw ànd liggéey Sokone jugee na ca Macky soixante-dix-neuf ba tey ma ngaa Macky dem na gëm sa bopp ca buggaan ngay dari wala fa jëri ñëwal ñun ci xeex baan yi lii mooy li ñu waxoon démb hmm. <laughs> mais gis nga xam nga ñeen ñoo jar a félicité libéraux yi ñëwoon démb M2D waa PDS. non démocrate nañ. bu leen neexoon ñu toog. Mm-hmm. bu leen neexoon ñu ne askan wi ñëw. Mm-hmm. c' bien fait pour vous. Mm-hmm. dëgg la loolu dëgg. dëgg la waaw mais troisième mandat dañ ko fi tere. oui Macky na xam ne troisième mandat du fi am. dégg nga Sud Quotidien ñëwal ñun ci. màggal gaa yi à double vitesse. mais kaay lii lii Ibrahima Abdoul Aziz Tall. Abdoul Aziz Tall. ancien ministre bëggul <coughs> Abdoul Aziz Tall. ancien DG wu LONASE. non non non waaw Abdoul Aziz Tall bëggul ku taal réew mi. Mm-hmm. taal nee na buñ taal réew. oui taal daal bëggul taal. taal bëggul taal. oui. Mm-hmm. nañ mooy tuddee forêt. Mm-hmm. di jouer avec le feu. Mm. lii raam ca ñag wala jëm. te bu fa amee kër du fa gaaw a génn. Mm. source a ñëwoon ñu ngi ci mi ngi. zéro zéro. mais nag alaaji gis nga titre bii nii dafa am solo xamalul tax waaw parce que boo xoolee euh, ñi ñu ñu waroon màggal dëgg ci dixième anniversaire bi defuñu ko mooy ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan démb Barthélémy Dias da ko fàttali mais ñu bëri bàyyiwuñ ci xel dix-sept personnes ñoo ci ñàkk seen bàkkan cent deux morts dont treize ci côté policier ah, feeñul ci benn discours am feeñul ci benn discours Mhm. balaa ngay mobiliser di indi ay pancarte di tëgg tama mais ñi nga xam ne ñooñu ñoo ñàkk seen bakkan pour loolu mën a am léegi fan nañ ne seen njaboot fan nañ mhm. tollu tey lan moo nekk seen avenir njaboot mhm. cela veut dire qu'ils n'ont rien compris ah xëj na xëj na bi dañ koo def rek ci mobilisation xëj na ci mobilisation mobilisation maanaam dañoo dañoo dañoo dañoo exéco ci mobilisation. oui mobilisation je veux dire mobilisation waruñu ko résumer. waaw ci mobilisation ah, mais eh, eh, même bu dee mobilisation. MDD ñoo gagné. Mm-hmm. fee amul kenn ku fa dem kuñ jox paas. wala tisi. nii loué nii importé nii loué. Mm-hmm. nii importé nii importé. je suis là. voilà MDD bu amoon cinq cent personnes. Mm-hmm. Macky double ko am mille. mais ñee ñoo gën a bari. absolument am na ñoo xam ne ku le bu amuloon fay amul dara fee lañ jëm waaye kaay laal junni te dem nation. nga dem nation ak fi réew mi toll. <laughs> nañ ma jox junni xool waaye Macky. naan ko yaa mën a tëjee mais bi la yaa mën a fale source a nee na moo fal ba fal ku dee ay si mi ngi nii instructeur la woon mi ngi nii nekkoon sous préfet bu ah, Banda Fassé Moussa Gadio mhm. démb la ci conseil des ministres bi bu njëkk ba dee day jaan wax ba du mën lépp waaye léegi de Macky mën lépp la xanaa <laughs> burdu la burdu la ah, l'heure quotidien yéeni kaay nañu burdu la njuumte gu rëy mu ngi nii Moussa Gadio ancien adjoint au sous préfet de Thiès Nord février deux mille vingt et bii la génn àdduna ñu xëy mu ca conseil des ministre ba damaa yaakaar ni ñuy vingt trois juin bi leen tiital. Hmm. door décret mais Antoine Diome ci guddi gi la ko rectifié fal ki ñu fal daa faatu daa làqu. eh fal daa làqu ñu fal ko xam naa titre possible la. <laughs> l'observateur ñëw ak ñun ci ma kee nga jëm ba bés tey ay heure a ci des. ba bés mais lañ gis ca mbëbës moo doy waar. lu benn bopp nit bu ñu lëmës ci dara. war nañ fi lu ne ci fanweeri néew ak ñaar. bokk na ca benn liir. mbëbës. mbëbës moom ay ay cimetière la wala la. ay la wala. professeur Souleymane Mbuub njiital IRESSEF nee na nañ leen waaj. Mhm. troisième vague. ñun corona fi mu ñu yóbbu rek dañoo doy sëkk na waaw démb 102 leen mas xoole gi xoole xoole gi Stéphane. kii réew mi mosul am entraîneur ak tubaab bu ñuy yabee ni kii. kii moom lañ newoon entraîneur mu daw bàyyi fa équipe bi. waaw kii de bañ jugee ca Birino. bañ jugee ca Birino ci kawam lañ dal kii ay gaaf. exclusive yéen a kaay ñëw a ci xeexu mobilisation baa ngi nee nañ Macky. efface le n lal ko nag ci organisation bu bon. Mhm. ak xeexoo xiiroo seen biir place de l'Obélisque moo fa am. dégg ñu ne Amadou Ba ak Moussa si ñoo saboté manifestation bi ak ay militants yu doon jàmmaarloo. yéen la rek. ñun de ñëwuñ fa lay ñëwuñ fa le témoin nañu match nii la diggante nguur gi ak opposition. Mhm. nguur gi ak opposition bu ñu niilee. yaaw jaal boo booleeg Balla Gaye ana kuy favori ku ëpp moyen ku ëpp doole su mat si niil amee ka mooy jubilé ah. yaaw jaal xanaa yaaw jaal opposition. place de l'Obélisque place la lii. du makki nag xoolaatal ñëw a ñun ci démonstration de force mais xoolal Doudou Sarr coordonnateur du M23 nee na doléance yu bëri yu waa M23 doon kaas Macky Sall satisfaire na leen. lim na nag ay l'âge de la retraite anam yow jour M vingt trois juin la ñu yóbbu woon nit ña. Mhm. ticket présidentiel bi la troisième mandat troisième candidature Ablaye Wade dëgg loolu dëgg mhm. foofu dañ faa dajale woon ay ay ay ay doléance lii la wax de waaye opposition bi moom fa ñu nekkoon foofu la ñu ne mooy lan troisième mandat moom du fi am tey te du fi am ëllëg moo tax critique yéen a kaay nañu gis nga même Macky bu dee waxul dara. bu dee waxul dara dara dara mu ngi nii même si Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot force est de constater que le chef de l'État risque de passer sur des cadavres pour tenter le diable. mu ngi nii waaw même xam nga Macky nii wii nii non nii wii nii non waxuma waaw waxuma déet même bu dee Macky waxagul dara bilaay njuuma lii bu ci bëggee téye muy troisième mandat bi ci ay néew lay jaar. Hmm. waaw xale yi ànd ak engagement. info yéen kaay nañu xool ko ñaar ñi doon football bokkuñu estat waaye tàng jër la def démb. mi ngi nii déedéet aslem ka signal bu fort la opposition bi yëkkati place de la nation nguur gi tamit woo nañ rappel des troupes waaye Ousmane Sonko nee na gars yi préparé leen préparé leen xeex bi ah mënul ñàkk. parce que Macky mu bëgg day dem mu bañ day dem kon. préparé leen Barthélemy Dias ne leen de laa la mën a xamal xeex bi xam nga kañ la siré hmm. septembre bii di ñëw la. septembre. ah oui. ndax lan. benn lu mënul ñàkk la. ñaar boobu moom àtte du ci am. xaayaar na ko dégg séeréer. Badou. Bart bii mooy deuxième fois. muy indi la mois de mars. ok. mois de septembre. kon wait and see septembre. wait and septembre mois de septembre mois de septembre. defante nañ nag. jaqar bente nañ ci ay kàddu ñoom de ah. ñee tollu fee Mor Ngom ci boppam mais Mor Ngom nee na réew mi waruñoo nangu benn nit rek jàpp dëkk bi en otage <laughs> xanaa Sonko moom wax ji <laughs> mais benn nit jàpp réew mi en otage loolu duñu ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg moo rey wax du samay kàddu de Sonko ne askan wi ñoo sonn. Siré xam nga ci lan lañ li ñu doon xeex dix ans. ba léegi moom la ñuy xeex. ba pare sax loolu ba pare ba pare mu morgom dafa def li ñuy tubaab di di tuddee aveu d'impuissance parce que yow boo nekkee état ak moyens yi nga am yëpp. bàyyi benn nit rek rek lëmbe réew mi. yow état ça veut dire que tu es impuissant. Hmm? c'est un aveu un aveu d'échec un aveu d'échec. direct news nañu waa mais M23 ak M23 bis mooy M2D gis nga seen sabaru gi. waa gars yi dañ dul jublu moom ci faratay xanaa. seetlu ngeen ne njëg yëpp a yokku. njëg yëpp danoo yokk feebar faju doom bu góor la ci réew mi le système sanitaire. gis nga ko nii en déliquescence. loolay xeex bi de. éducation wala njàng may njàngale moo xam ni daanaka dee na mbay maa ngi nii agonisante sukuraat dégg nga suñu wàllum industrie yi moom wàcc na en faillite. te euh, tabaski baa ngi ñëw tabaski bi moom beneen beneen problème lay. quand le ministre fait du du ràcc. dafa am ñoo fay fii ñu organiser ko ràcc. dégg ay junni junni ci ay liggéeykat ba léegi ñu ngi sàkku seen xaalis mooy ñan société yoo xam dañ leen a tas depuis Matousalem. Sias Soadib Air Afrique ak yeneen ak yeneen sax. Hmm, ñi yëngu ci wàllum napp gi ñu liquider seen i société waa lii da ngeen ci dul wax. ay seen ak yëpp sax. waaw kay. Buujumaani rek am ngeen gan. ah waaw waaw. tapis rouge. Buujumaani am ngeen gan. non gan gu mag gan. tey la mbëbës a neex. wuy ma jarul sañse am won leen ko yeneen ñan. si buuju gi. waaw na buuju neex. tey mi ngi nii. gaskat yi jeqikat yi Buujumaani yi mobilisation rek président day ñëw. bu leen bañ poussière. bu leen poussière. na lépp jool. na neex en un mot. na xeeñ. muy nee na xeeñ. dégg nga Siré na ah. xeeñ. waaw mbëbët non mbëbët sax day na mi ngi 24 heures yéen a kaay ñëw ak ci Matar baa ngi nii ak ak infrastructure sportive yi stade yeeg ñoo ak ah, Macky Sall dañ koy pressé. ñu koy pressé de. ñu koy pressé de na stade yi gaawte na baax. M2D ngi nii mandat. du fi am. docteur Babacar Diop ci biir journal bi nee na gis nga ñu nekkoon place de la nation lu ñu yëngu ñoom moomatuñ ko benn ay traître fa woon démb ay ak ñoo xamante ni nii comploteur ñoo fa daje. m ko taxoon a jug mooy ne leen xeex troisième mandat démb kan nga dégg mu jibal fa troisième mandat ca ndaje ba. ba pare yéen Ahmed seen affaire bi M2D. Ah. bu ne. waaw ah. war ngeen ko dabbali quoi. parce que loolu loolu loolu dafay baax. ah kon kon yow Siré man fi mu ne nii yóbbu nga ma fa. yóbbu <laughs> yaa ma dugal ci MDD bi noonu. Hmm? boole nga ma ca. <coughs> ah fa mu bokk ca nag. yaa ngi ci biir yow. ah c'est sûr. oui en tout cas Déthié leen bu yeboo ngeen booloo nekk benn. Ah. une liste kase la mais euh, d'ailleurs sax ngeen ñoom ñoom ñuy def prétexte chaque weer ñu mën a daje di gën a waxtaan dana gën a yombal bañ ca tollee ñu mën a def benn say. Hmm, yàlla baax na. warul ñu ànd de. loolu de moo leen mooy mooy xaw a mooy jafe-jafe bi nag. mais bu loolu bu ñu ko réussir rek ku ci de la ko yàlla defal ñeneen ñu dañuy bañ. Hmm. déggoo ma de xale bi nag moom yàlla defal na ko li mu ko defal. ba pare démb ni mu ñëwee rek kay wanee na ko. Hmm. moom Sonko ñibbi gi ndiiraan gi kan leen yóbbu këram. moom la ñu yóbbu baadu. da doon jàpp hmm. Sonko nii ba këram. ja <laughs> jaajëf jaajëf El ay Ahmed gis nañu message yi également message yi jàll yi ku ci mel ni sous préfet bi Djibi Diallo mi ngi jàll Fabrice Ngema na de c'est officiel dama ne na la vague bleue bu kenn xaarul dama la attaquant sénégalais ba day waaw dana fekk benn équipe bu bu mag sax bu am ay ambition jiitu rek ngir jiitu rek looloo jikkoom moom équipe bi waaw cay la vague bleue dama ne Sadio Mané signé na fa de waaye équipe day rëy